waa salaamaaleykum euh, mbokki internet yi rawatina waa Fësël TV tey ñu ñëw fii rek def benn interview ak sunu frère bii di Abdou Diakité mu nekk benn international boo xam ne ku ko xamul dégg nga ko ñu ñëw tey rek waxtaan ak moom si lu bari surtout si carrière am waa ñu ngi lay nuyu. maa ngi di fay maa ngi fay ñëpp aussi ñi di seetaan émission bi te di rafet bi ngeen tay di ñu dem rek ci première question bi maanaam kan mooy Abdou Diakité parcours am mu jàngee nan la def ba dugg ci football. waaw bon man euh, Grand Dakar laa yaroo même bu fekkee euh, juddoo ma fa sax euh, fa laa yaroo fa laa yaroo après dem école comme ñëpp bon ak comme ñu bëri boog laa wax ma màggee ci quartier bi joué joué ci nawetaan jóge nawetaan dem championnat jóge championnat dem équipe nationale junior olympique bon après voyager pour euh, pour jouer professionnel voilà bon nawetaan comme nous nañ ko xamee rek nawetaan nekk na loo xamante affaire affaire quartier bon affaire quartier la te boo de dugg tamit da ngay bëgg di dem dimbali quartier bi jouer quartier bi défendre drapeau quartier bi donc euh, moo ma si euh, motivé bien vrai que dinga nga ay ay concurrent yu ex si koñ bi ak ñu jóge tamit extérieur fin yeen quartier mais da da ngay xex rek gëm aussi sacrifié wu et puis et puis aussi nawetaan tamit euh, tax na tamit aussi ñu bëri xam ma moo sax yombalal sama demu HLM bi bi may dem jeu championnat donc euh, donc c'est un honneur quoi man jaar naa am jaar naa amitié cadet

ak gars yi defoo preuve fenn donc kenn la jox ak confiance donc ma dem amitié rek pour jouer pour wane sama bopp bi mu ñëwaatee nag bon jouer défendre quartier bi ngay dëkk tamit dafa neex quoi dafa neex te da lay yokk jom te aussi amoon naa vision aussi ni que euh, waruma si yàgg bu fekkee dama bëgg def carrière bu boo xam ne au delà quartier bi la au delà Sénégal donc défi bi défi bi si man man dama yàgg gëm ni bon dama yàgg toog di naan mën a fula dama yàgg toog di naan Grand Dakar mais pourquoi am ay talent am ay talent yu bëri bëri bëri parce que dégg nañ fi suñu ay mag ay ñeneen ak ñeneen quoi mën a fula un jour mais pour lan waruñu mun a am ñun ay professionnel mu ne ma ah ba ne ko si donc si lañ commencé am idée quoi man ak moom kese di waxtaan suñu nekk après bu ma demee HLM ma ne ko non bu fekkee man bu fekkee man jéem a imposer HLM fii est-ce que dinaa mun imposer wu donc man man man li li ma yàgg def rek laa wax ah yow fajar dawi yi ba pare ñëw après euh, soo ko dem entraînement club gëm ko nag yàlla teg si loxoom loo gëmul rek yàlla euh, du si teg loxoom parce que euh, après bon après tamit lu ne ngay dégg ah lu ne dégg dina am du dem de dem du jouer du jouer non la nous avons joué. alhamdoulillah mo jouer am sélection def saison après nous fofu mo dem NGB NGB cinq mois et demi Nous fa def rek dem euh, def rek après dem Slovaquie premier contrat professionnel Slovaquie la AS équipe première division réalité yi changé na amul nit ko ñuul ville bu mu nekkoon dama egg di joy ma ne non bu fekkee li mooy ab professionnalisme moom dama ñibbiwaat quoi xam nga ah, boo tàmmee ambiance bi ambiance bi toog ataaya dem bopp koñ bi entraînement jeex nga lekk ndambe amul foofu man kese si néegu hôtel bi gisuma yaay gisuma papa gisuma xarit gisuma kenn quoi tu vois gisuma kenn bon après moj donc sax ak non dama ah dama quoi et puis ma de dëkk boo xam moins douze degré sedd wetu Russie la Ukraine Europe de l'Est la quoi bon après xam bon après ma jékki-jékki waat tëdd Je benn jour xalaat ne mais man sacrifice ma ma chance bu ndaw bi instant bi bon début bi début trop trop trop trop genre parce que da entraîner même noy passé bal sax dañ leen baaxul non da ngay da ngay da li nga doon passe da def ni tulli benn gars bi joueur bi tu vois donc yow euphorie boobu bu la boo ko eh, rek mu nga dugg piège xoolal nu ñuy nu euh, contrôler en mouvement mais man ma dem coach bi daf ma yàpp wala daf ma xeet wala wala fekk non xam nga rek esprit esprit bu ma amoon premier deux mois yi dañ may saa ñu entraîné équipe bi coach bi daf may jël appartement entraîné ma encore une heure de temps ñooy passé nu ma bëgg nga jouer utiliser sa pied gauche léegi utiliser pied gauche bi utiliser pied droit bi noonu laa def noonu noonu deux mois et demi d' entraînement rek après benn jour rek mu ne ma non dama lay jouer loo benn match derby quoi a Trencin la woon ak Gilina waaw mu ne dama lay joué loo donc mu jël capitaine bi défenseur central mu teg ko si banc bi mu ne ko non comme que instant yii nii yaa ko rek chance am mais chance bi dafa nekkoon genre chance ak piège match bu mag la dafa mel ni ñu ak ak ak ak jànqala premier match musuma joué ak professionnel mu ne ma lim la lim la jàngal rek tari ma bon, may ba, dengan pression nak Dengan pressure, dengan talk. Ak, ak, ak, ang lima gumon rek. Wa sa maker, wa ne, ah, tay mo premier match bi affaire yoy Ñu jékki-jékki ñu jouer fekk tamit jour boobu ma dugal. Yeah, ma dugal. Def na match, na passé na moyenne bi. Ñu génn mu félicité ma après ça y est quoi. Début baa ngi noonu, début professionnel ma dem bu ma jógee Belgique dem Anvers dem Belgique def deux ans et demi ma Belgique deux ans et demi Madame États-Unis joué naa fa presque quatre ans et demi hein. mais dans différentes équipes dans différentes équipes bon bu mu doon dem nag États-Unis nag bon ñu bëri ñu ngi wax hein, pour la mu jógee Europe nga États-Unis mais bon. jaam ak xaw ma nu ñu koy waxatee buur beeg dogalam du sama choix mais circonstance bi moo ma obligé ma dem États-Unis équipe bi dem naa deuxième année bi maa nekkoon ak capitaine léegi mu am ay investisseurs yu bees yu ñëw coach bu mu fa indi day dem président bi day dem directeur technique bi day dem donc jour yi nekkoon en fin contrat yëpp moo ñun ñaar lañu woon ñu ne non

mais alhamdullah regretté wumako amul ben regret regretté wuma ci dara football si man bo xasse ba egg ben niveau bi rek na ngay jouer rek na ngay jouer bañ jouer mo bon mais même bo demone bo fongole mi wala Australie xawma la jouer rek wa jouer rek sama xalat quoi la wax sama xalat ak limu ma 4 ans et demi fofu ma jóge fa ma dem Asie. jël naa dëgg la jël naa fa trophée yu bëri jël naa fa trophée individuel yu bëri ay meilleurs joueurs championnat bi meilleur défenseur équipe type bi chaque année tout tout waaw yu bëri yu alhamdulilah yeah dëgg la yeah ci laa Vietnam Ho Chi City parce que équipe bi da doon jouer Champions League asiatique daf mel ni ñu ne Champions League européen équipe bi da doon Champions League peut-être offrir me peut-être offrir me peut-être me salaire de ma don am États-Unis offrir ko def ko peut-être damay ne huit fois <laughs> Alhamdulillah. <laughs> tu vois xam nga xam nga euh, xam nga gars duñu comprendre lu bëri moy États-Unis Europe dafa bëri taxe buñ la fay mille francs cinq cent ngay encaisser 450 quatre cent mu dem si état de football dafa gàtt boo si teelul boo jekkoo boo si teelul def li nga def wala jël li nga jël bon ba sama mais expliquer mais peut-être à travers l'interview, peut-être yenn yu aspiré à joueur Grand Dakar bi tout est possible mais il faut nga sacrifier

bon gars yi nañu lay xoolee mooy rek Sénégal boo leen nee Sénégal rek dañ lay dañ leen ne El wala Pape Bouba Diop temps yii ma doon dem États-Unis bu nekk nekk étranger jóge Afrique si li ma dund dañ lay xoolee d'abord base ya base ya mooy maanaam dañ lay xoolee suuf

waroo lekk lii waroo naan lii yeneen ak yeneen supporters yi ñii di saaga ñii di waxle donc euh, donc dafa bëri ay facteurs bien de ce mais al mais alhamdulilah man laay wax de lu bëri boobu posit lu lu positif moo lu négatif te tu vois comme sama kër toujours billaay heure bu ma sax euh, vacances jaar foofu ba pare nuyoo top foofu entraîner deux jours trois jours doo ko ñëw Sénégal waaw nekkoon na sama souhait bu yee waaw comme tout Sénégalais ak joueur rêve de défendre sa ay sa ay sa pays nation wala mais des fois tamit aussi il faut ñu il faut ñu comprendre que ñun ñëpp mënuñu jouer équipe nationale bu ñu woowee ñu dem. mais bu ñu la woowu tamit da ngay fair play rek gëm ni tamit après supporter ñu fa nekk comme Qatar man dem na dem naa seen match yi amul problème mais mais bu ñu woowee ñu dem bu fekkoon performance dañ ne rek performance individuelle la wala li ngay noom dama ci ngay jouer ay ay ay ti mun naa ne man damay dem mais du du ma du ma maay di teg charte yi et parce que dama fi jaar donc dama xam euh, société xam naa dund naa ko jaanaa si koñi et tout donc pourquoi pas nga am nga am lu tuuti jéem ko jéem tas d'une manière euh, globale quoi mënoo dugg si kër bu nekk jox leen mais mun nga mun nga def action sociale yoo xamante ne ñu bëri buñ ko déggee sax ah dañ nekkat ah non lii lu baax la te def na ko si biir Grand Dakar waaw donc euh, motivation bi foofu la commencé des années et des années yow mun nga ma donc tu parce que dama koy def te yàlla tax ne gën fay bu nit tu vois donc yow nga ma si te bu à chaque fois de koy je def def sans hésiter waaw pas peut-être trop tard pour wax mais on buñ carrément quoi

wërante ci si bopp koñ tout tu vois si si deug la deug la euh du ñak des fois yow sa ay copains dem mais surtout bu fekkee mën nga dem jouer club dama rangé nga jouer même bu fekkee ba Saint-Louis ngay dem jéemal jouer ci première division parce que fa la nit ñi di la di la gën a train bi fa la gën a demel ni rek yow yow demel rek tay nga né noonu sa mbëñ demee xam xaar yàlla baax est-ce que yàlla dina wàcc mu faj bañ bi ah foo nga jóg dox dem si eh, dentiste bi kii kii kii kii mu metti affaire yooyu mais ba pare si après lu muy de day nice loolu mooy train de vie boo xam man dama ko jàng mooy àdduna il faut nga xoostu ba pare mu meti affaire yooyu ba fruit yi buy ñëw mu neex mooy si mais malheureusement bon si si li ma gis léegi lu bëri xam nga booy dañuy bëgg léegi léegi léegi genre ne dama bëgg nekk joueur léegi léegi léegi suba il faut ma nekk pro pro bi la rek pro bi mooy professionnalisme tur la rek parce que euh, pro bi sax euh, foofu nga koy dundee si terrain bi ak si environnement bi ngay joué boo fa jógee jeex mais il faut nga li il faut wu déggal sa ay parent boole ko ak dara liggéey bu bëri ak rang genre il faut nga joué quoi

li rafet rek parce que tout est possible quoi tout est possible ouais inshallah wa waaw maa ngi plan mu ngi sam bopp commencé woon naa si wax ay nit mais mu ngi si moom mu ngi si mu ngi si tu vois mu si mais il faut ñu créer dara dès il faut ñu créer dara loo xam te mu xam ne lii mooy base tubaab bi ou bien dara bu ñu ñëwee dañu mën ah fan ngeen di te eh booy fu ñu entraîné am fu ma waxee même bu dee amuñu moyens sax ñu fii instant bi nii mais mun nañ am genre base la base si si mu ngi sama xel dimbali leen te du loolu kese même même ni may joué nii des dina dinaa ànd ay copain tubaab genre seere yow yaa nga gis ak moom am na bu am na boo yu bëri yu muy yu muy yu muy dimbali nànk nànk tu vois mais man bu ma mujjee laajte fii dañ ma ne rek xaw ma minime mo am xaw ma am minime affaire yooyu genre mais bon mu projet yi donc après il faut base ak unité déco waaw déco jubal le bu fekkee bu contact là alhamdulillah mon ami diou et eh, États-Unis kaay diou Europe et eh, diou Asie ah pour le diw ma yeah bon mangi ngi maa ngi rafetlu déplacement bi di kontaan si ñëpp di leen à très bientôt et yàlla na jàmm yàgg yàlla defoon jàmm ñëpp xam nga sutura et puis maa ñëpp quoi waa bi yéen ñëpp bon ñu gisee waat rek waaw incha allah jaajëf.